asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV SBT Média xol bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ma ko taamu di defee rek laa ko defaatee seet si ndaanaan champion muy Jacob Baldé ku ne xam na ne ñëwoon naa fi ci diggante ma Boy Jobaas ma ñëwaat fi ci diggante moom ak Papa Boy Djiné le 6 incha allah muy journée sans production ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wàccaay bi ak lan lay indil ki nga xamante ne mooy Papa Boy Djiné bu ne cuur la koy indil ak kuy kuy da koy day gëlëm. waaw da ngaa gëlëm. jinde daa gëlëm lépp lépp dina leer dama koy bàyyi bu nuyoog suñu mbokki internet yi ak ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre diaspora bi ñëpp ñu daal di wéy ak moom ci waxtaan bi. nee na papa dafa gëlëm. jinde dafa gëlëm dafa gëlëm. maa ngi lay nuyu ma yëgoo génne. Apple fayadel la. bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ suñu ko jaaral fi nekk ay leeram yàlla tas ñu si barkeeb daal ci barke alxuraan di ñaanal suñu papa suñu maam suñu tanta suñu maamu jigéen Zilbal de Junior Moussa Lo papa Yada suñu maam Mbaye Guèye maam Douba Lees maam Boy Bambara mu woy dawlu yëpp ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax ak suñu maam bu génn àdduna fan yi AC lutteur bi ñu koy ñaanal tamit suuf ayoor si kawam. yàlla yërëm ko yéexee ñu jéggal leen seen i bàkkaar ñoom ñëpp ñu rëcc sax lu ñu doon tegee seen tànk ci àdduna waaw yàlla yërëm leen te yéexee ñu waaw di nuyu tamit waa Bargny waa Tubaab Jallaaw yéen Kayar Caaroy Ngor Wakaam Yoof Bayaax Géro Ndaayaat fépp fu dëkk bu nekk rek waaw ñu ngi lay nuyu te di la woo ci di woo waa Casamance waa Bignona waa Guinée waa Añaak waa uñëw waaw bi ñoo nay ñu ngi leen woo baax a baax a baax baax ñu jàpp si combat bi waaw. Kaakaar ñëw na ma comme ni ma ko waxee mais bi combat bi jeexee jotumaa ñëw ndax dafa tombé woon ak ma sama yaram sutante tey euh, nga bëree booy jëbaas combat bi xawoon diis nag ñu ne fi nga dugg dafa diis nga ñëw yàlla génne si nga encaissé si coup bu doy waar mais teewut nga bàyyi Jacob saa buy xeex dañuy gis ne buy gën a métti muy gën a jàpp. sa diggante ak Boy Diobass li nga bëri laa bëgg nga ñëwal ma tuuti ñu soog a ñëw si préparation bi. waaw ñëw rek def fulla ak fayda yàlla may ñu si nag moom amaana umpale woon nañu bu baax a baax a baax a baax baax na xeeboon nañu. damaa jëloon te xam nga. waaw damaa jëloon te xaw ba. mu mel ni démb la ma wax de ko après ngay comprendre. waaw boobu <laughs> après la ko. après lay allah moom jàmbaar la ñu ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal su amee combat ku du mbëru Pikine yàlla na ko yàlla may na ko. diggante Boy Diobass dafa am coup bu doy waar boo si jël ci bët. Mhm. mais teewul nga bàyyi coup ci ban moment nga ko jël bi ngay daanu wala ci biir bëri bi nga ci biir bëri bi bañ commencé yaakaar naa deux minutes ay deux minutes trois minutes yooyu laay jël coup bi ba ñuy korante noonu si la may épercule may tombé may sigi mais teewul onze heures parce que métit moom tàmm nañ ko du léegi. tàmm nañ ko non yàqul dara sama làmb rek si arbitre bi ba ma demee ci moom sax. taf na sama benn bët bi boobu gisuma mais sama fit ak sama jom rek laa ne ko ñaari baaraam nga ma wan te au fait ñaari baaraam la tàllaloon xaw ma ne sax ñaari baaraam la tàllale benn bët laa doon bëri booy jobaas dama doon tàtte sens rek wallaahi macha allah euh, ki nga xamante ne euh, mooy Dame Souguer gars yi ne moo la def mbër ndax bi nga jógee foofu ba léegi macha allah yaa ngi euh, wone sa bopp tey bu la gars yi xaaree ci nga ñàkk tey ngay gën a mun a ñëw wane fulla fayda ak jom li gars yi di wax da nga koy confirmer daam Suguer moo la def mbër waaw wala de rek sama deuxième combat la ma daal ba léegi ñu ngi sant yàlla te ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yàlla yàlla xeeb doole waaw rek ci ay ndam yu bari bari bari ci barki Seydina Mohamed ci li nga xamante ne mooy carrière Jacob Baldé tuuti ndax ku ne xam na ne doomu mbër la sëtu mbër nga mënoon nga dem xooli tamit leneen mais teewul da nga ñëw intégré ci euh, bëre bi di bëre euh, ci biir carrière bi yan euh, façon jàppale nga ci am ëllëgu sa ko lan nañ ci mun a xaar li la dugal ci làmb ci yaa ngi ci gis sa bopp waaw wala déet. waaw ci bu baax a baax a yaakaar naa ni kuy dugg ci làmb rek tax nga dugg ci biir làmb ji waaw te ñu ngi ci suñu entraînement yi sur papa yi tamit ñu ngi ñuy jàppale waaw ku si mel ni papa Zil. ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax sam papa ama moom tamit mu ngi ciy jàpp bu baax Demba Paate ñoom ñëpp ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax sam bàjjen yi tamit aussi sam bàjjen jiina may mun a mun a xajatu ndey kodd waaw ak sama tante yi tamit ndee la ñoom Mariama ñoom jaara ñëpp ñu ngi ciy jàpp ñu ngi ciy jàpp baax a baax a baax tey daal man sama booy ñoo ma xaw a jaaxal di waaw tey moom dañoo ràqaaju waaw tey moom xaw a doy waar. dañoo yëngu te waaw tey yëngu bu baax a baax kay. macha euh, allah carrière bi lan moo la ci gën a neexagum pour l'instant. carrière ci wàllu jàppale ci wàllu bëre ci wàllu booy yi nga xamante ne ñoom lay àndal lan moo la ci neexagum en attendant lan moo lay motiver ba chaque jour da ngay gën a bëgg euh, di nekk ci làmb. sama xarit yi mu doon àndal ba ma nekkee xale waaw loolu daal ñoom ci gën a marqué. ak su ma amee combat peut être ñoom ñëppay arrêté seen activité nekk si ba combat bi jeex ñuy doog a delluwaat seen activité xaw ma seen fay ma leen di ñaanal yàlla defal leen wér gudd fan xéwlu saa am baax ba yaakaar ci man ñu bokk ko kàttanu yàlla. nekk ci ay dynamique euh, victoire macha allah papa nekk ci ay dynamique défaite donte nag tegle na ay défaite mais ndaanaan la champion dañ ko koy nangu ndax des fois di mun euh, pomi lool mais des fois da ndax tolof tolof mun ta ñàkk ci àdduna ak euh, li nga xamante ne moom nga tegle muy victoire nga jël Papa Boy Djiné lan moo waral nga jël ko dafa am loo bëgg a wone euh, dangeen doon dëkkante wala dañ la fay xaalis boo xamante ne kase boo xam ne warta romb la nga jël Papa lu tax nga jël xaw ma sax ñaata lañ ma fay yooyu moom wax dëgg fa ne lijjanti ma ko sax luñ ma war a fay comme lu may wax rek yàlla dogal dañoo war a bëri te dañuy bëri suñu paree rek pare nañ ci waaw di ko ñaanal beneen combat yàlla na ko yàlla may dem. ah combat bi daa jeex ba nga ko ñaanal. Ah, combat bi moom mooy loolu. waaw <laughs> yow Jacob dëgër nga fi de. <laughs> la ca koy jël waaw la ca maam koy jël te man sama ñaari côté yëpp waaw damaa doon mbër. combat bi xeebuñu ko. combat bu ñu respecté la boo xamante ne xam ne fi mu ñu yóbbu bu baax a baax a baax a baax. te si dama naan bii mooy sama premier combat waaw. maa ngi doog <laughs> bi mooy sama premier combat ndax di bëri koo xamante ne dafa am défaite dafa métti si ay dynamique de défaite la toog dafa métti pression bi wax jéeg yooyu gars yu bëri dañ naan yaa ko mën mais yow xam nga lii la war man mënuma kenn yàlla doo nga fi ne te ku yàlla jàppale rek a fi nekk ñu ngi ñaan yàlla jour boobu mu jàppale ñu faat suñu côté. Euh, ku ne xam na ne da ngay tenir papa bagaar ak lu ko waaye mënti waxal day xeex papa dafa mën a xeex bi yaa ngi koy bàyyi xel ci wàllu préparation xeex bi yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax yàlla def na ni ñu ñu gën a mën a xeex laa bëree taxawul. dama koy laaj waaw. xoolal ma ñu la lañ wax ma ñu day xeex. ku jëwut la lay dàq booy jëwaas même chose est-ce que taxaw man lu ma koy ñaan mooy na taxaw rek. taxawee. non du yàgg. taxawee bu yàggee ci yéen ñaar. Euh, dina la arrangé. non gis na samay combat yàqamte wu ma lu bëri de. dama yàlla jégal sax si waaj moom tepp tepp rek laay def. da ngay si laa dëkk. léegi combat bi kan mooy dirige. non man moom dama lay may 15 secondes yoo xam ne damay taxaw di la dégg. ay waaw secondes yi daa xew de secondes yi moom si jeexee rek maa ngi sa kaw foo mën a dem moom daway jëw. dama koy jëlaat mu wax ma ci combat bi tuuti après man ak yow daal di wéyal daal di maa ngi lay si. maa ci loo nekk. maa ngi fi nag. ngi kuul di kuulaat. kuul bu baax a baax. Ah. combat bi dégg naa dafa diis ci yéen diggante Papa Boy Djiné ak Zako. Papa Boy Djiné day xaar. combat bi diisul gars nee nañ dafa diis gan. su moom la diis mais diisul su ñun. lan moo tax ci moom la diis. Papa Boy Djiné day xaar ñun ay leen te doon soxla. danoo nekk si yoon te danoo war a jàll am yoon bu rëy bu nu war a jàll. bu wala bu yaatu. bu yaatu kay. lu naan taxawal nii xaar noonu la nga koy def taxawal nii xaar. maanaam day xaar day taxaw ne. day taxawee ne. da leen di xajal ngeen jàll. dañuy xajal ñu jëm suñu yoon. du ko taxaw bu indee xeex dem. su indee xeex tamit day xaar. lépp dina arrangé sama. dinañu arranger lépp lu mu mënti indi dañuy arranger. booy bi booy bi kon lan la mën a xaar ci papa. papa dinañ bëre dinañ xeex moom kay na taxaw déglu ko rek. sa booy la woon. soxam soxam su sama booy la. toos toos day dem. kee mooy xaar kay. mais bu indee bëre nag. ñu fekk si ko ci. lu mu indi kay ñu fekk ko ci. bu leen luy naan yox la jëli ko loolu la nga la jëli ko naan muy la naan muy gaaw du ngeen ko may dara du ko may saala yaay bu leen maye suñu maye ñu jël bu leen jëlee ko pikin pikin fu ñu neex kay papa dégg nga gars yi naan papa jinne jinne la nee nañ jinne la de jinne daa gëlëm ko la man. jinne la jour waa nekk nit. ku koy def nit. Sokop waaye ah, jour waa dina nekk nit par force. mais Demba Demba yaa ngi koy wax ni defoo dara muy dara mais papa dafa dangereux. ñu noo gën a dangereux foofu ñu nay xale leen. moom ne xam na ne xale la Demba. mag la na xaar. combat bi lan ci papa. papa amu ci dara. lépp ñoo ko moom. amu ci fecc amu ci tuus amu ci ambiance amu ci bëre amu ci xeex amu ci dara. Sokone mooy tuus mooy ambiance mooy bëre mooy daan incha allah. waaw la am ci combat. amu ci dara ñëw taxaw déglu ko ñu daan ko la si am. yombul dem. si ñun. billaay. léegi koy wax sa dernière. lu koy wax. lu ma koy taxaw déglu booy bi rek. bu taxawee déglu booy bi na am lu koy defaral rek romb ko déglu koo dem. booy bi mujj naa doon ah. <laughs> jàpp naa. ba tey benn la rek. jaajëf Demba jaajëf. Demba Demba Demba amul dara ci combat. ah <laughs> mu ngi ko wax kay. ni ko doon rek. nag comme Demba ko wax moom. na ko déggee doo rek booy tey dañ maa jaaxal de booy de yëgu de larki alxuraan karim mais sant yàlla rek waaw. mobilisation looy wax promoteur bi. sama xarit la de. ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax a baax a baax ku si mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Thiam. waaw nga xam ne jeunesse bi fi teg jeunesse bi la fi neexal malgré du meer du benn du dara dara mais bonne volonté la te mu ngi jàppale waa Pikine bu baax a baax a baax a baax moom suñu papa la. suñu waay la suñu lépp la day jàpp suñuy bis bu baax a baax a baax bii mu ngi ciy waajal mobilisation bu dooy waar te ñu ngi jël lépp tamit tegaat ko ci loxo bi Cheikh Ahmed Tidiane Thiam waaw ak jooy yim jooy nga foog ne àdduna bi ñu mujjee yërëm ko mais pël dafa neexut a wax rek mais papa su nekkee situation ñoo ko gën a méttile su nekkee moom lu mu yaakaar rek bay jooy ñoo ko gën a méttile mille cinq cent fois xëy na dañoo suñu ngor moo ñu mayel ñu toog si télé bi di rek mais lan lay jooy moom na wax nit ñi exactement lan lay jooy. <laughs> mais jooy fees la. <laughs> maa ngi koy dégg mu naan saxam xew xeebul yooyu bay sëgg di jooy. wallaahi entraînement yi moo métti rek moo raw muy jooy. billaahi saa waay xew bala de. entraînement yi de te su bis ba su ma simee kii xeebu moom muy doon liggéey du métti am na yoo xamante ne sax matatu la wax am na yoo xamante ne sax matatu la wax. waaw ñu ngi sant yàlla daan ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. suba suba ngeen war ah ñun moom <laughs> yow pël chaque dimanche ñu ngi jël suñu saak rek combat bi sax moo ñu moo tax tournoi yu bëri dañu rëcc mais chaque dimanche muy Iba Mar rek Adrien Senghor teeree gaal geeg dëkk séeréer yi fu am dañuy wàcc di nuyuwaale waa dëkk séeréer yi tamit waa Palmarin waa Fimela Diofior Ndiosmone Fatick kawlak Dionewar Joal waa Fadiouth ñëpp maa ngi nuyu dëkk séeréer yëpp waa Waljaxal waa Kaolack kum lim juum waa Passy waa Sokone ñëpp. naka demee euh, arène nationale le 6 incha allah. waaw fii lay déparé kër maam nañu déparé waaw parce que day def mobilisation bu doy waar di woo tamit waa Maris de Guèye nga xam ne fa laa yeewoo di leen woo ñoom tamit maa ngi gis seen mobilisation bu baax a baax a baax a baax. waa Maris waaw waa Maris yi. maa ci woo bu baax ñu jàpp si gën ñu gën see jàpp sax la yàq waaw. génn xam ne lépp benn la daal ñu dooleel seen doom. combat bi fan la lay yóbbu. fu bëree bëri. fu di combat bi yóbbu fu sori la ñuy yóbbu. fu sori rek. Mali wala Guinée. Casamance dafa wane. wallaahi. bi nga daan papa fan la lay yóbbu. waaw papa daan la nan lay def ci. <laughs> yàlla nañ ci yàlla musal bu yàlla yàlla bu malaaka amin romb yàlla dañ ko daar ak jàmm ci barke alxuraan karim waaw combat rek comme li ma wax rek moom ma toogee di xalaat papa sax dama war a dem Guinée jël sama tool maa ngi tàmbalee bay xam ne comme man fi ma teg sama bët ci la am wallaahi bu nekkul sax pour papa xëy na dafa bokk suñu yoon ñu may wax rek dañoo war a bëri dañuy bëri yàlla nañ ci yàlla defal ndam yàlla nañ ci defal ndam ci alxuraan karim ay ca mbokk yi jërë ngeen jëf maa ngi lay jaajëfal di la kontaane dama lay bàyyi nga tàggoo may ma rek maa ngi ñëw ah, dama la woo ma da ngay mais ba nga demee ba disponible nag maa woo téléphone ma daal di ñëw kon loolu dama la ciy sant gërëm la ci ndax ku ne xam na ne wàccaay dafa métti temps bi xajal nga ma ci di la ñaanal jàmm ma lay bàyyi suñu mbokk et à travers Mouride TV SBT Média nga nuyu la neex gërëm ku la dañuy woo rek dañuy woote rek à commencer Cheikh Ahmed di ko woo di woo Thierno Ndong Ba Rama Maki moom tamit gis na ni mu ci jàppee ñu ko si woo bu baax mu gën see jàpp di woo waa Pikine di woo sama jabar tamit ak ay xaritam waaw di leen woo ñu ñëw jàpp si di woo waa jamono yi nga xam ne foofu la dëkk ñu ñëw jàpp si waa Zeng Gelewaar yeew Teranga Espoir cosaan waa Raas waa Angar waa ginnaaw raay gi yëpp ku lim juum waa Mazeng di ko teg ci loxoy Kocc ci loxoy waaw waa Bokk Jëf tamit di ko teg ci loxoy koc waa Massa Zeng Lamine Koor waaw moom tamit muy noonu di woo Demba déranger si combat bi baax baax baax de ko combat bi combat am la. day ñëw day ñëw. day ñëw Demba kañ saa leneen la ko kañ booy déranger fépp. du ko si woo xam naa ni ma def nii sax du ko neex mais moom dina comprendre la moo tax ma def ko mooy noonu di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp di woo tamit Maris 2 ñu ñëw jàpp si ak waa asalèm Maris sama gars yi bàyyi ma kenn waaw ñoom Pape Sidi Thierno Da Dabo Papa Fall Idi Tidiane Mamour ñoom baaxat jaago Souleymane Daouda ñun ñëpp comme ni ñu si doon jàppee rek ñu gën see taxaw jàpp si bu baax baax a baax a baax di waaw booy tamit <laughs> aw ma seen fay di leen jaaral ñu doon ay mag yi am ñam di gërëm ñëpp di woo ñëpp waaw di woo ñëpp ay Kalidou ñoom Thiam ñoom ñëpp daal di woo Ama ñoom Malo Seras 200 pour cent Pikine beeg ñëpp maa ngi leen di woo ay ñoom Boy Niang Sokh Jetli Ondu ñëpp maa leen di woo ñu ñëw jàpp si ubbil naa ñëpp bunte yi. ayca boobu jërë ngeen jëf ma leen di jaajëfal di Maas. sama cameraman di jaajëfal suñu chauffeur bi nga xamante ne mooy Yero di bëggee ñëpp di leen jox di daje ci beneen daanaan beneen champion di leen ñaanal jàmm ndax nee naa leen lu dul jàmm jàmm ko gën yàlla na jàmm yàlla